victime di nag ay ca tey da am gan. waaw tey ñu ngi dalal koo xam ni sax gàng la ci kër gi. Moustapha Bachir Cissé. waaw def naa ñu bari miin nañ ko ci kër gi yàgg na mhm. fee ñëw. ñu bàyyi ko mu nuyoo tey moom la ñu dalal su nuyoo ba pare nag ñu doog a wax sénégalais yi lan moo ko fi indi tey Bachir Cissé ñu bàyyi la nga nuyoo. Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam eh, maa ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara son bu di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi seetaan jamono lu ñu toll nii rek. Mm-hmm. di am mbégte bu baax ak kontaante ci teew bi ñu fi teew malgré gëj nañ fi ca défilé ba. waaw yàgg na donc waaw gëj nañ fi waaye làqatu woon rek nekkoon ci ay mbir di di di di liggéey loolu la. am na nga Gambie. waaw. dégg nga anglais. Euh, non arabe la dégg. arabe waaw ah, damaa bëggoon nga nuyu waa Gambie mais garaawul comme euh, Gra Gambie dañuy làkk arab waaw non man moom laa jàng moom. ah da nga jàng daal waaw dama moom laa jàng. donc moom laa doon jàngale itam en même temps. ah d' accord hmm. c' ngi noonu kon Adja kii la ñu dalal tey. xam nga ci suba am nañu benn cas bu niroog bosam. Mhm. dañu am benn ci suba koo xam ni sax ñëw na tey xam naa war nañ ko enregistré. Mhm. ñu xëy taf photoom daal ni kii dafa bokk ci ndawi Antoine yi ni ci groupe WhatsApp yi di boolewaate. Mhm. maanaam ku def audio bu tàng. ñu jël ko yot Antoine ñu rocc booy di jàpp ñu bari jàpp nañu leen nee nañ ci groupe yi am na ñuy yabar ci groupe whatsapp yi ñuy boole moom nag dañ ko cee boole ni kii ci la bokk. moom mooy ki ñu jël ci rajo bi tey. Ah, mais kaaw moom tamit dafa nuroo ak kaaw kooku. Hmm. dañu jël photoom numéro téléphone am joxe adresse am ak yëpp daal di koy taf ci audio boo xam ne dañ naan kii mooy yàq lu mel ni xeme Serigne mun Mbacké euh, daal ni nag euh, mi ngi noonu kon dañu ànd ak topp ñu dem xool li ko gars yi def ci internet bi après ñu dellu si waat. Hmm. salaamaaleykum Moussa Mbaye la ci kàddu gi waa Dembale nag moo nekk nii. pour yéen ñi nga xam ne yéen a féete Gambie di taalibe Serigne Touba yi nekk foofu euh, autorités yi Gambie yi tamit jot nañ ci image bi ñu ngi gëstu nag ndax actuellement mu ngi biir Gambie wala déet mais numéro Gambie moom lay utiliser euh, jëmm ji ngeen gis nag moo yëkkati kàddu yu ñaaw yooyu di ko teg ci kaw Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké pour ngeen bàyyi ci xel yéen ñi nga xam ne yéen a féete Gambie yéen tamit ngeen dimbali autorités yi ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def foofu ba xam mu ngi biir Gambie wala déet. ki mooy dembale kaddu yu ñaaw yi ngeen di dégg yëpp moo koy yëkkati di ko teg ci kaw Cheikh Mouhamadou Mountakha bu ngeen demee ci Facebook am sax dafa supprimer image am foofu. mooy Bassirou Cissé Bassirou moom moom numéro bi ma capturé moom moom 77 mujjee 89 bii nii moom adresse am mu ngi noonu sax si si biir téléphone bi waaw Couture Dakar voilà. voilà Adja euh, gis nga am na bu ñuy joxe boo xam ni démbali lañ joxe. ca Gàmbi moo tax sax ma ko ndax gëñ nga Gàmbi ndax dama yëgoon ni moom. Mm. day dem Gàmbi ñëw te am na fa ay mbokk suma ma juumalee dinañ ci ñëw. Mm-hmm. Bachir léegi bi lii amee taf nañ sa photo joxe nañ sa adresse joxe nañ yëpp ni yow kat yaa doon yëkkat ay kàddu yu ñaaw ci kilifa googu nekk ca Touba après dinañ ñëw ci yooyu yëpp waaye. Mm-hmm. kan nga jàpp ni moo def lii ak it est-ce que xam nga ñu def lii. waaw ñu nuyuwaat beneen yoon ki ma dégg muy wax léegi de Euh, nee nañu Moustapha mbay la tudd. Euh, xamul mais kooku tuddul sa tur. no beneen tur la tudd. Dembale waaw Dembale la tudd. waaw moom sax euh, wax nañ ci WhatsApp mu ne ma audio bi man maa ko def. mais boolewu moo ko ak sa photo. beneen photo ki may tudd ci audio bi moom laa boole woon. Ah, ak moom Moustapha woo nga ko. waaw waaw jokkoo nañu communiqué nañu man ak moom ci ci ci ci ci WhatsApp bi. moom mu ne beneen la ci def. Mhm. léegi boobu bi ma ko gaawee freiné. Mhm. parce que comme dama nekk nit koo xamante nii mun naa wax ne nii. bon am ñu ñu bëri xam nañ ma. Mhm. démb dama gaaw immédiatement rek def li ma war a def ci wàllu yoon pour porter sama bopp parce que mun naa xëy. Mhm. sama mbokki taalibe yi. Ah, koj ma donc def ma bi ma mhm. demee bay saaga doo saaga da keneen nga saaga man Papa ko moom ci boppam jaar naa ci loxoom léegi kon su ma demee bay ba koy saaga maanaam fan laa ko teg man léegi boobu bi ma ko gaawee fere ne ñu ko def bi ñu yégee ne boobu dama ko gaaw a freiné bi ñu xëyee tey dama jotaat beneen. Mhm. boo xamante ni comme ki fi jaar. audio moom lañ jëlaat de la ko tafaat ci ci ci sama. audio moom dafa tudd sa tur. waaw fii dafa tudd sama tur carrément. Mhm. ne Bassirou Cissé moo nekk noonu. Mhm. donc euh, ne mooy jël euh, numéro yi di leen balancer Antoine. donc Antoine di leen jàpp. te mosuma mosuma xam kan mooy Antoine. d'accord déjà kon mënuma nekk ndawal Antoine. d'accord. képp ku ma xam ci sama liggéey nga ma xamee wàcc dem ñibbi. d'accord loolu naa ko ba benn yoon bi may jaar. loolu dinañ ci ñëw sax léegi yow. Mhm. ndax da ngay faral di débat ci groupe bi ci entre tarixa ak tarixa ak diine yu wuuteeg yooyu euh, voilà. non du ma koy du ma koy faral di def. mosoo di débat groupe bi ci entre tarixa ak tarixa ak diine ak diine. déedéet déedéet déedéet wax dëgg yàlla mosul am. mosul am parce que bañ naa ko ba euh, wàllu wàllu tarixa dama ko dama ko dama ko ragal bu baax a baax. Mhm. waaw bañ naa ko ba dem parce benn groupe whatsapp bi nga xam ne bokk naa ci ñi ko jiite sax dañ ne kenn du fa waxtaanee wàllu tarix lu mooy information kenn du ko fa waxtaanee mais information bu ci ñëw nag dañ ci waxtaan ñun ñëpp waaw mhm. d'accord euh, léegi ndax itamit dafa am parti boo bokk jël fa position di ko defendre ci groupe whatsapp bi wala itamit daal Bachir ci atelier rek lay xëy su wàccee wàcc na gérer njabootam euh, yoruma benn carte membre u parti mais yaa ngi défendre ab parti ci groupe euh, défendre uma parti ok li may défendre mooy Euh, dama fi nekkoon 2011. may def couturier donc ñu xawoon a am tuuti problème ñun ñi nga xam ne ñooy artisans yi. ci wàllu lu demee ni courant ak yee ci aju. heure bu may wax moom laa dama ne président Macky Sall bis ni tey tey tey bu coupé woon courant bi suba suba dafay wàcc parce que ñun courant courant bu amul lii du am. Mhm. mais toujours fu ma toog dama ko wax wàllu courant moom ku ci wax ma joxe ci sama kàddu. Mhm. sama avis. Mhm. bis bu président Macky Sall répondre ba courant bi tey tey tey mu commencé xuy xëy xamaj xamaj mu xam ne nii ñëpp ñu ngi ci moom mm. mais lu dul courant nit ñi mën nañ ko toléré mm. loolu moom fu ma nekk dama koy faral di wax mm. wax boobu nag xam naa ne bëri na ñoo xam ne déranger nañ leen te fekk li ma wax moo am parce que daana xëy di moins lu mu gàtt gàtt ma jënd vingt litres essence wala gasoil yeneen ni ci des moom amul problème parce que bokk naa ci ndaw yi nga xam ne gëm nañu ne maanaam dëkk bi ñun ñoo fi war a a toog liggéey ko moo tax ma créé li ma créé bokk ak nekk ci liggéey donc kon su courant bi xuy xuy xamat xamat rek man damay am problème côté boobu moom képp koo xam ne mere nga ma ci côté boobu nga ma mere hmm. parce que heure bu ñu taxawee wax danaa wax li nga xamante ne moom laa gisee sama bopp ci dëkk bi hmm. loolu moom awma ci benn benn benn benn sentiment d'accord léegi balaa ñuy ñëw ci plateau bi ku ne ak question yi ñu ciy def ak yooyu léegi mbir mi xew na def na ay fan hmm. léegi ban réaction la nit ñi am ci yow ginnaaw bi ñu partagé sa numéro bi wala gars yi comprendre nañ la xam ne Bachir mii kat mi ñu xam du yëkkati kàddu ñaar teg ko sëñ Mountakha wala affaire bi après nan la la dikkee. waaw am na ñu comprendre am ñoo xamante ni comprendre wuñu parce que tey rek li ma jot ci appel non waaw démb démb sax ma ëpp. Mhm. démb foog naa li ma jot ci appel motu sans appel mais li ko manqué bariwul. Mhm. te tey itam noonu la amee mais ñu bari bu ñu la woowee dañuy laaj. Mhm. ndax li ma dégg dëgg la wala du dëgg. après soo leen expliqué comme moom dama yor vidéo bi nga xamante ni moo waral coow li mhm. man dama ko yore. vidéo bi waral bi waral coow li coow lan. bon dafa am benn vidéo boo xam ne sëñ Mountakha mu ngi ci. Mhm. di joxe tendrement. Mhm. am ku interpellé vidéo bi wax ci lu xaw a doy waar. man vidéo boobu ci laa doon waxtaan. d'accord bi ñu ko indee ci groupe bi ci vidéo boobu laa doon waxtaan léegi nag ki nga xam ne moo def vidéo bi dañu réeroo ci ay kàddu. parce que man maa dugg ne. kër gii de du këru tarixa du këru kii mhm. fii buñ fi waxtaanee maanaam buñ fi indi vidéo wu sëñ taxa mhm. di ko fi waxtaan vidéo boo xam ne dañ koo saaga te loolu la mos a gëm mhm. parce que samay ah, boo xam dañ doon wax sëñ Muntaxa kàddu yi ñagas ñu dugal ko ci groupe bi nga ni nañu interdit di fi dugal kàddu yi wax ci sëñ Muntaxa waaw luñu d'accord foofu la wax ji jógee waaw foofu la wax ji léegi nag ki nga xamante moo def vidéo bi moom nee comme man dama koy contre ci côté boobu noonu insha allahu rabbi dana ma yàq directement noonu la ko waxee dinaa yàq yàq liggéey ah oui xam nga ko waaw xam naa ko. mi ngi Sénégal. non nekkul Sénégal. d' accord nekkul Sénégal. ayca Omar waaw di ko euh, kii rek masawu tout d' abord euh, comme comme victime la mais aussi tamit di masawu képp ku nekk victime aussi tamit ci loolu parce que mos naa ko wax fii nii am na ci ay groupe yoo xam ne ci benn dëkk fii bari na ci ay xale yu ñu jàpp yóbbu leen ci yoon. Mhm. dañuy ibbi groupe WhatsApp ñu seq ko. waaw léegi ñi leen di piégé dañuy ñëw saaga Ousmane Sonko. waaw waaw waaw. maanaam saaga leen. léegi bu leen sa bu saaga Ousmane Sonko ñi teewul usman Sonko ci groupe bi dañuy mer. Hmm. bu meree sa saaga tamit. fan far ci wàllu politique. Hmm. bu dee ab audio la ñu jël ñoom saaga ban saaga du génn. Hmm. waaw génn mais audio bi tontu seen kilifa ñoom. la ñuy jëm yóbbul kilifa gi na ko ñii kat. li leen nekkee ak yow ci dëkk bi bari na ci ñu nekk victime mm-hmm. ñooñ aussi tamit da leen masawu parce que yow mi tey yaa ngi toog di ko nettali mais ñooñu mun ñu ko nettali mun ñu défendre seen bopp parce que doonoo nekk ci loxo yoon te pourtant da leen tooñ rek peut-être ñu toñar bi wala ñu wax leen ñu fayu mais ñu bari bu ñu déggee audio dañuy foog ni ñoom rek ñoo wax pourtant ñaari audio la dañuy saaga seen kilifa ñoom ñu tontu léegi nag bu dee moom li jëm ci moom question bi ma koy posé mooy dama foogoon ni yow bu dee audio dafa am ni ñu interpréter audio bi avant ngay teew man dama jàppoon ni yow da nga far ak usman Sonko di ko défendre sur les réseaux sociaux moo tax ay nit meral la ci loolu parce que ñi ñuy jiñ ñaan dañuy tudd sëriñ si si yenn yi da leen féetale Ousmane Sonko waxuma fa leen féetale da leen fa féetale mais yow ci sa biir wax dafa mel ne groupe bi nga ne danga fay défendre kii di président Macky Sall nan nga mënee nekkee victime ci situation bu toll nii. ba pare Antoine di mu waaw ah, ah, Antoine di la wër ñu ne damay défendre ba pare Antoine di ma wër. Ah. léegi bi ñu waxee loolu boobu jàll ñu xam ne boobu du jàll parce que dama gaaw a dem lijjanti sama bopp. dama gaaw a dem police dañu naan a boole ci ñi Antoine. waaw waaw Antoine ki ma njëkk a woo tag suba teel. dafa ma ne tag sa va. Hmm. Boussora ma ne ko mu ne ma yow xam nga ne Antoine mu ngi ci sa kaw ma ne Antoine ma tiit ci ay nelaw ma ne Antoine Diome mu ne waaw ma ne non lan laa def après mu ne ma xaaral léegi ma envoyé la benn audio. mu envoyé ma audio bi ma dégg ñu ne man maa doon saaga sëñ Muntaxa mhm. ma ne xaaral ma daw léegi yow ci laa sol sangu sol yére rek daw dem police ok bi ma euh, demee nga baal ma mais loolu moo tax nga changé version nii léegi nga baal ma ci loolu Omar dafa dafa wax maanaam li nga nekkoon ci groupe bi mhm. est-ce que nekkul ni dafa wuteeg ni nga waxee nii non mais comme bëgg nga rëcc nga xam ne féeteeg Sonko moom ci réew mi moom lu ne mën na la ci fekk non non mais li nga waxee def mel ni président Macky Sall lay défendre nga wax su ma déggee. waaw ah, man da dégg loolu ci ay kàddam. Ah? non non ci biir waxam bu nee. Ah, ok wax ci waxu courant bi wax ne li fi Macky def moo tax ñun coono yi doon dund dundatuñ ko. ah ok président Macky Sall ngay défendre ci groupe su ma déggee ci courant man courant rek mooy sama àdduna ci mooy sama problème ci àdduna. suba fekk man munoo nekk ci groupe bi di wax di wax courant rek yaa ngi wax leneen. non non non non non waxuñ fa sax waxu politique. waxuñ fa sax waxu politique. mais yow na nga sa biir introduction nga ni affaire diine ak tarixa la ñuy tere ci groupe bi. waaw groupe pour mbiri politique rek lan fay wax. info la. waaw ah, info mais bu ngeen ma ko mayoon ma tudd turu groupe bi. non je non jaru ko. Ah, ok mais nga ni rek waxi politique lan fay wax parce que peut-être daf mel dégluwoo sa bopp mais man maa ngi lay déglu. bi ngay tàmbali information. information bi ñuy wax Sénégal information principale bi lan la bu dul Sonko rek du génn Macky. bu dul Sonko. du génn Macky te da nga ne ñi tudd foofu président Macky Sall di ko dingat dingat man bi ma koy défendre ci mbiru courant bi laa koy défendre. parce que coupé tout kon kay yéen a ngi wax. ci saa yu may défendre laa la wax saa yu may wax ci Macky courant lay doon la ci des sama yoon nekku ci man loolu laa wax sànq nii. Mhm. mais li waral coow li. Mhm. vidéo wu sëñ Mountakha bi moo waral coow li. ànduma ak position wu maanaam benn kilifa diine nag bu mu mënta doon maanaam ñu indi ko ci biir kër gi di ci waxtaanee di ko di ko saaga même bu nekkutoon sëñ Muntaxa keneen comme dama damay ci joxe sama avis audio bi li ma ci def li ma ci def ci audio matut une minute dama ne ah saaga sëñ Muntaxa nag ci groupe bi dafay dakk loolu laa wax waa ji na ma ah kon yow àndoog man position danaa la yàq yàq sa liggéey mais Bassirou man dama dégg ni APR nga bokk groupe WhatsApp yi nga bokk danga nga fay défendre Macky Sall ak Adama Barrow bu fekkee loolu am na sa droit la ah, nga far ak Macky Sall wala keneen ak keneen aw ma benn carte politique mun nga bañ a am carte far aussi hmm? mun nga bañ a am carte non euh, faruma li may wax mooy man dama bokk ci famille boo xam ne famille religieuse la bi ma ganee àdduna ba tey mosuma gis benn président boo xam ne dafa toog maanaam ñuy ŋàññi kilifa googu wala ñu maam ci loolu lañ ma yar quoi. Mhm. amu même Ousmane. li mhm. may li may wax ci ci yeneen euh, politique yi. Mhm. maanaam ci seen lu rafet man moom laa yar ci Ousmane. am na kan mooy Ousmane. Ousmane Sonko. Ah, am na ci ñoo xamante ni tey ñi nga xam ne xam nañu xam nañ ma bu baax a baax. dañu génn ñoom nga xamante ni daanaka li ëpp ci liggéey Ousmane Sonko ñoo ko yore ñoom bi ñu ko yëgee. Mhm. audio yi ma la mujjee yónnee noonu soo paree nga déglu ko. Mhm. di nga xam ndax waa waaw mais li ma laaj nii waxal da danga lu tax ngay défendre ay Adama Barrow président Macky Sall ci groupe WhatsApp yi nga bokk. défendre ma Adama baro défendre ma président Macky Sall. président Adama Barrow sama soxna man Gambie la nekk. Mhm. su ma demee bay ŋàññi Adama. maanaam ci lan laa ko war a ŋàññi su ma demee ba koy défendre ci lan laa ko war a defendre sama soxna sama soxna moo nekk Gambie. mais bokkoo APR mu leer. fan lay kana ba ngay bokk APR am parti. d'accord d'accord parti bu bokk. waaw macha allah. li ah. euh, ñaan euh, man moom gëm naa ni moom saaga woo kilifa yi. non moom lool lool lool gëm naa gëm naa ko. Hmm. que ni euh, parce que li njëkk rek. mooy le fait que nga daa dee ñëw. ñëw waaw euh, d'abord pour seetal sa bopp loolu lu baax la. Mm-hmm. tey li nga dem police tamit lu baax la. Mm-hmm. loolu moom gëm naa ni euh, defoo ko def naa ni lu luñ la bëgg a taqal la. Mm-hmm. Euh, mais ci liñ la bëgg a taqal bon moo tax li ndaw di wax naan kuy lijjanti yaa ngi lëjal <laughs> ci biir wax ji ñun buñ la dégloo tamit day amaat yeneen yoo xam ne bii day lëj ci ñun. alaaji fii dara lëj. <laughs> dama lay wax rek xam xam la laa kii xam nga lu muy bañ. <laughs> beneen ku mu bëgg a invité. non non non ko mel ni Omar. da nga ko waaw non xaaral déedéet. gas. lay sànni xeer. non bàyyi moom amul droit wax. non bàyyi ko mu sànni xeer jaarale ko ci man. bàyyi ko mu sànni la xeer jaarale ko ci man aywa bisimilah. non Adja xamante ne ñoom ñaar la. waaw mais bàyyi ko bàyyi ko wax soxla. affaire sëñ Mountakha wax rek lu muy gas. aywa waaw mais xanaa liberté de ton amul. kii kii doy na waar de ah. kii day na waar de. waaw loolu indi ay ndaw neen ku <laughs> xam nga rassuré naa ko ci côté bi nga xam ne moom lañ koy indi. waaw jàpp naa ni moom ay nit ñu ko bëgg a taqal la rek. Euh, dugal ko foo xamante ni fii. Euh, foofu moom man moom wax dëgg fa yàlla xam naa ni. nekkoo fa defoo. jëf ñaaw parce que ku la xool xam ne nekkoo foofu quoi. mais jàpp naa ni ñoo bokkalut ay gis-gis. Hmm. ak i euh, ñoo la bëgg a sànq. xool nuñ la a sànke te niñ koy defee lu lâche la quoi yooyu baaxul mm-hmm. parce que yenn façon yi nit am na ci kii yoo xam ne boo fay dugal nit rek mën nga ko mën nga ko reylu quoi loolu nekkul loo xamante ni bi lu baax la waaw fii baax na fii ñi nit ñi ma a mais ci kaw nga koy expliquer laa yow ci kaw <laughs> ci kaw nga koy expliquer hmm. am na koo xamante ni bi ngi toog parce que boo bu ma bu ma jëlee Omar fi mu génn ak fi béti génn. Mhm. parce que da lay wóor ne fi béti génn. béti am na ci yow benn information. parce que ni mu la posé question bi. am na lu mu xam non non tàndu du am na lu mu am na lu xam. waaw maanaam am na am na lu mu xam quoi. Ah, c'est que boo dégloo li ma laajee. mu ngi mel ni li ñu wax ci ci man boo dégloo li mu wax. Mm-hmm. am na am na loo xamante ni bi xam na ko. comprendre nga te boo dégloo tamit fi Omar génn. ci commencement bi waxoo ko mais day boo ko booleeg li bëtt di wax. am na même bu fekkee ne yow jàppoo loolu mais am na ñu la déggee noonu. comprendre nga ñi la déggee noonu peut-être yow mën nga bañ a jàpp loolu. mais xamal ni am na ñoo xamante bi déggee nañu noonu nit ñi nag am nañ sañ-sañu féete fu leen neex. loolu moom liberté la. que ni nit ki ànd ak président Macky am na ci plein droit parce que mën nga nekk sénégalais gis ni président li muy def ànd nga ci. bokk nga ak moom gis-gis am keneen koo xam ni gis na ni parce que man li may reproché ñu nekk ci waa APR que ni euh, bañ ko tudd Sonko jaaduwut. parce que Ousmane Sonko nit ñu bari dañoo retrouver wu gis bokk ak moom gis-gis. ci ni nga xamante ni bi noonu lay doxalee noonu lay kiiwee. Mhm. mais tamit noonu la amee ñu bokk ak président Macky Sall li ñu gis bu ñu dajee ci groupe yi nag. mën nañu waxtaan ñu wax ay idée ak affaire yooyu parce que man jàpp naa saaga sax nekkul loo xamante ni bii yoon la. Mhm. nit ñi di saagante ci ay groupe mais nag kantaa nag ma jël yow. Mhm. bëgg a yóbbuwaat la ci beneen terrain. Mhm. vraiment jël sa photo loolu moom mbiru nit ku bon la. loolu moom ku koy def moom nit ku bon nga. parce que mën nga sànq lu nit ki mën nga rey lu nit ki te loolu baaxul voilà loolu mooy li nga xamante ni bii moom laa doon wax. Euh, ci mbir mi donc yow it say explication euh, na gën a leer. lim leer na de maanaam yow leeral nga ko. <laughs> leeral la nga de dafa mel ne dafa xaw a yéerim Bachir. <laughs> dafa xaw a xam Bachir moom ah. fi mu ko taalal loxo parce ma xam xam naa ko non daf ma xam xam naa ko sooy bu est ce que ne à part Abdou Aziz moom laa njëkk a defal publicité sooy bu daf ma xam xam naa est-ce que macha boo ma doon wër tey. bul sax sonn waxal son yi bu dee na ko demal jàppale. waaw yàgg ngeen waaw waxal son bu na ko na ko demal demal <laughs> aw ma aw ma leen lu ma ciy ci ay ñu lay waaw li ma ci jot. tëkku tey rek am na ku ma ko wax ah. ku balaa ngoon di nga faatu. ah oui. am na ko ma ko wax tey tey tey ah, nañ waaw balaa ngoon nee na ma insha allah numéro yooyu bu dee Sénégal jëlal numéro yooyu non non nañ tey nag xam nga tamit tuumaal nit rek nga bëgg a ñi li tax ñu war a def attention photo bi nga xam ne moom lañ ma tuumaalee ci sëñ Muntaxa moom lañ jëlaat tuumaalaat ma ci leneen mais def nga vidéo ci TikTok bi aussi wax non dama noon du ma wax fu dul sama kër fii mooy sama kër. waaw ma gën pare fii dina tasaaroo dama noon d'accord fii moom dina tas bàyyi groupe whatsapp yi non non Omar groupe whatsapp bi foofu dama bëggoon naa ci leeral sax bala moo dem xam nga léegi whatsapp ah, damay damay dama damay dimbali admin mhm. dañoo mise à jour whatsapp léegi xam nga bu njëkk da daan wax naan saa béti retiré lii nga dugal mhm. léegi whatsapp may na admin bu nit dugalee ci groupe bi lu jaaduwul yow retiré ko gis nga Bachir lii muy wax ni cas bi dal nañu bërki démb man ci groupe bi nga xam dañ ko ubboon sama tur ñoo xam dañ ma dañ ma sopp ubbi ko dafa am ko dugal ab euh, audio boo xam ne vidéo boo xam ne sëñ Muntaxa lay wax comme li mu wax mm. ma identifié audio bi ba pare wax ci li ma li ma koy wax ma ne ko man sama kilifa sëñ Muntaxa mm-hmm. du ma fekk mukk ci ab groupe bu ñu koy waxee lu ñaaw ma toxal wax jooju indi ko ci waat ab groupe kon dafa mel ni yow yaa xaslu sa kilifa mu ni waa déedéet damaa gis ñëpp ñu ngi ciy wax ci groupe sàngam ma ne ko nga bàyyi ko ca groupe sàngam ñu wax ca mais comme fii boobu ba léegi mosuñoo wax ci sëñ Muntaxa ñaaw lu tax nga fi indi ojo buy wax ci sëñ Muntaxa ah, léegi après bu débat bi bare ñu ne ci GCB fa lañ koy waxee sëñ Muntaxa ma retiré waat groupe ma retiré waat li nga xam ne mooy vidéo bi loolu at mii nañ ko xam muy yow muy keneen ku ci yor group am nga possibilité ku dugal audio wala vidéo nga retiré audio bi ba kenn du ko gis. ba kenn du am na waa ji ma ko jàngal ci plateau bi keroog ma gis mu commencé di lu lu ñor mu retiré lu ñor mu retiré. <laughs> lu ñor mu retiré lu ñor mu retiré ayca kon looy tàggoo jeexal nañu mm-hmm. euh, kon daal jubluwaay bi moo doon wane ni li ñu wax dañ la ko taqal mm-hmm. sëñ Muntaxa yëkkatiwu ay kàddu yu ñaaw ci moom mm-hmm. sëñ Muntaxa yëkkatuma ay kàddu ci moom beneen bi itam mooy bokkuma ci nit ñi nga xamante ni maanaam dañuy naxasal jeunesse bi man fépp fu ma ne fexe ba jeunesse bi maanaam jàpp am ci luñ jàpp nekk di liggéey ci loolu laay dox. Mhm. wax fa dëgg yàlla boo gisee sànq maa ngi wax kii ma ne ko. Mhm. gëj naa fi. Mhm. Ah. tey tey tey boo ma laajoon lu jëm ci wàllu mbëkk mi. maanaam ma defal la ci documentaire boo xamante ne état suñ ko toppee mu am kii parce que man loolu la ma yàlla xam. ayca basi bi ñu tëjee non sant naa ñëpp gërëm ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. amiin waaleykum salaam wa ak euh, tukulóoru baay mhm. te boobu ñoom ñaar ñoo àndoon euh, jëlu ndox mu bare bari mhm. euh, te duñu ay taalibe murit jënd ndox mu bari ah. di ko yóbbu Touba ni yow ak Assane Mesere kaay leen ngeen waneel ma ko mm. loolu mas naa ko seede ci mm. moom mu ànd ak tukulóoru baay te yàgg na est-ce que matul sax juróomi at wala juróom benn at voilà ñu ngi koy defa ah. waaw tukulóoru bàyyi moom borom baax kon ba suba ak jàmm allah ay ca ñu ngi koy remercier bu baax ñëw di tey ni nga freiné ne moom <laughs> <laughs> day xabaabar day jàll kañ